asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu ngi fii ci Kër Massar seet si jeune ndaw bi nga xamante ne dafa fas yéene jàppale askan wi di jàppale jeunesse bi muy Bassirou Ka mouvement politique APR BAS di ko jaajëfal mu muy li nga xamante ne mooy drapeau Badou Fall ak ki nga xamante ne mooy George Bush le 13 incha allah nee naa leen dina neex dina yëngu. comme li nga xamante ne rek moom lañ fi fekkee mbooloo bi nee nañ le 13 dara du yomb sabar yi dara du jeex mais nag balaa loolu euh, moom ci ñi nga xamante ne mooy ñaar ñi nekk ci wetam dinañu wax nu ñuy wàccalee bés bi ak naka la ñuy wuysee Assane Ndiaye Assane nag defoon na ko da koo tollantiwaat mais bii dañuy ne euh, première édition la te ku ne xam na ne ñaari mbër yi ay ndaanaan lañ ndaanaan lañ si gox bi ñu nekk ndaanaan lañ ci li nga xamante ne ci loolu la ñuy yëngu muy wàllu bëre ndax dañoo bëre bu prouvé tey bañ sañ leen a teg fii war a jàkkaarloog ñoom ñu jox toog nii ñoom ñaar jàkkaarloog mais nee naa la su waree jàkkaarloog ñoom Lamine Seck ñëw taxaw bàyyi ji li ñëw taxaw dama ñëw ne leen Lamine kaay taxaw mu ne ma doxalal bàyyi ji li ne ma doxalal maa ngi leen di kontaanee di leen jaajëfal cër bi ngeen ma jox du lu mu man xëy na cër la yàlla na leen yàlla defal jàmm maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi leen nuyu ku nekk tura ak santam di leen ñaanal yàlla bés bi nga xamante ne bii moom lañ tasi fii tey yàlla nañu ko tasi wax la treize mbër yi nga xam ne fii tey lii mooy Sénégal Sénégal jàmm lañu xam senegal jàmm lañ bëgg loolu moo ku jóg bëgg ñëw Sénégal ndax ku ñëw ku foo mën a nekk Sénégal jàmm rek nga ko kon maa ngi leen di ñaanal yàlla bés bi tey bi ngeen tuddee tey sama jarbaat mooy jawriñ Basiru Ka dikk ñaanal yàlla ma am wér ak wérle ba bés bi fekk ñu ci jàmm ñun yëpp ñu def délégation bi nga xamante ne bii pour ñu dem ci stage ñi nga xamante ne mooy ñaari mbër yi war a jàkkaarloo te am naa yaakaar ñi ma gis ñuy toog du ñu ay coono du dem pour ñuy woo ay xale ci histoire fu ñu mën a nekk yar ak cër ak teggin la ñu nekkee foofu yaakaar naa loolu mooy Sénégal di nuyu it samay àndandoo ñi nga xamante ne ñoo la sekkal taabal bi di leen ñaanal yàlla ci am naa ci ñoom mbégte bu baax ak wuy si bi nga moom la ñu wuy tey cër bi nga xaman moom lañ jox sama jarbaat mooy jawriñ Basiiru Ka maa ngi leen di ñaanal si fi ngeen liggéey si mairie bi yéen a xam li ngeen bëgg yàlla na leen yàlla defal te leen ñaanal it jàmm bés bi ñu toog bela terees ñun yëpp a ñu def asambal ñu ànd dem foofu ñu bokk ndey bokk baay ñu fo fo ak ree ba daan ñu xam ne kii moo daan ñu jóg ku daanu jóg ki ki daan loo ko am ne tey bésam la beneen yoon it moom mooy mooy aye ndax ah, kuy kuy togg ceeb il faut nga def orne loolu ma tax tey kontaan naa di am na yaakaar ah, Assane a ah, ti awoon pël da nga ko ñamoon li nga ko nga ñamaat ko bu doon jigéen ma ne benn jabar ngay yem ci Tivaouane Peulh kese ngay yem doon seeti beneen ndax tey comme que mu jël nga ko tey jokk sama jërbaat sama àndandoo sama karit su ma yeboo ma ne mooy sama bakkan sax ndax man lu ma soxla su ma wàcc sama laal dama jël sama telefon woo ko rek ma ne nangam laa soxla mu ne ma kaaw xaaral maa ngi ñëw. waaw asalaamaaleykum. nuy naa leen ziar leen nuy ñëpp di si jiital ci nuyoo bi suñu président comme ni ko Sayer Thiam waxe waa di si di jiital nuyoo bi waa comme ni ma ko waxee rek di nuyu suñu président El Hadj Dia di nuyu notre coordinateur Bassirou borom mouvement BAS pour le développement national et international muy sama président may présidentam di nuyu Mouhamed fay sama rak di nuyu Pape Kend di nuyu Mbaylum di nuyu Lamine Ndiaye ah di nuyu Assane Ndiaye mi nga xamante ne moo tëgg làmb ji di borom Bawol production di nuyu Abdou Aziz Fall. di nuyu jigéen nag ñi ma àndal di wax si turu jigéen ñi ndax nag yaakaar naa euh, jigéen ñi du ñu des ginnaaw ci benn programme boo xamante ne Basirou Ka da koo soxla nee naa la bu ñu tëddoon ba xaaju guddi bas nga yeeñu nañu damaa soxla 50 car dañ koy mobiliser te nag yaakaar naa fii gisoo fi benn mbojo mbojo ñu fi toog ñëpp a majeur et vacciné kon bu le 13 Assane Ndiaye comme ni ko Ousso waxee duggoon na Tiwaawoon pël ñam. du gàttiwaa woon pël ñam ñam na nijaay ñam jarbaat kon bu la treize dana mel ni mbaxalu naka waa kay dana mel ni mbaxalu banaana dinañ mobiliser fépp fu femme nekk si ci waa woon pël incha allahu rabbi dina teew jeunesse bi bu góor ak bu jigéen ñëpp dinañ teew dinañ def li nga xamante ne loolu lañ war a def ndax ñun làmb dafa nekk suñu bëgg-bëgg man bantamba dama koy seetaan di suivre mbër yi sama doom bëgg làmb tubaar fa kàlla macha allah sama doom yi góor yi toog yéen ñaar ñi nga xamante ne yéen a war a bëre le 13 ma leen di ñaanal que gañ ndam li ci ku mu ku képp koo xamante ne rek yàlla jox na la ko rek yal na nekk sa njiglaay su dee yow yaa ko jël nga gestu wax kii ne ko bu beneen yoonee yal na ko am moom mi bu dee moo ko jël ñu wax ko bu beneen yoonee yal na ko am yàlla defal leen jàmm ñu gàttal kàddu yi may gërëm ñëpp nag di gërëm waa Tawfeex waa Sokabek di gërëm femme yi ma àndal ñëpp nag ndax koo wax jógal rek mu jóg rek jóg yombul macha allah ñoom ñëpp gërëm naa leen sant leen. ayca mu ngi noonu ah. mais nag nee naa leen buñ fi taxee ba demit mun munu ñàkk a dugal wulli wulli waat wulli faa nga ñëw nga sànni ci ay kàddu ñu daal di jox Assane jox Basirou Ka ñaari mbër yi ñëw ñu daal di ñibbi nag ku ne xam na ne instant bi euh, lumière amu fi ah en plus suñ cadreur yi ñu ngi signalé ne image doxatul comme ni doon doxee wuli gaay te gewel Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka Basirou Ka BAS BAS BAS BAS Basirou Ka Basirou Ka BAS dëgg neex olof Ndiaye nee na lu ko jar ko jar te olof Ndiaye day faral di wax naan mag bu naanee ndox bu tàng suukar saa tax xëy na nag li nga sekk ak bas ba nga taasul ko loolu yaa ko xam jàkkaarloog àdduna nga wax ak ñoom waa salaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp di nuyu journaliste yi tailleur ak jigéen ñi ñëpp ma jaañ bas dafa baax bul eh, di nuyu yow waaw sama xarit Basirou dafa baax bi ma koy xam maak Lamine àndoon mu ñëw defar ñu fa teraanga boobu ba léegi wax dëggu si yàlla baax rek lañu xam si moom la Lamine mën na ko seere nit ku baax la man de wax dëggu yàlla lu mu xewle kenn doo jiitu barke Sëñ Bamba te waawoon pël am nañu ku baax billaay walaay talaa di ñaanal aussi Assane Ndiaye sama xarit la bu baax a baax a baax di ñaan lamb ji yan na ci yàlla def jajam. waaw doo nuyu Fatou na nooy naa ko mais Bas jërëjëf kontaan naa Kaaw yéen a baax yee ñëpp maa ngi di ziar bu baax a baax baax. Eh, kaay. ñaari mbër yi ki ñëw écrit. kii ba ba mu yore ko andi. sama ba ba ba ba ba wol ba ñu la kii caaroy ba ba ba ma ñoon ko andi sama xarit la sama rak la di rekk ma ñoon bàyyi ma ñoon aussi dafa xaritu ba ba ba ba Basiru Ka Bas dafa baax ah Bas ñëpp a xaritam lañu maa ngi koy ñaanal Bas loo bëgg yal na sa bopp defal. kon yow waa léegi. Badou Fall. koo faral waxal rek. ñoom ñaar ñëpp mais kii mu ci état booy bi booy bi tànkam baax bi il faut nga toj ko kon naa rek. mais biir buñ tojul ba heure bi est-ce que dina tojati. <laughs> yow kii yéen a bokk écurie bul am complexe neel kii laa faral. non kii laa faral moom. waaw looy ragal. non xam nga man léegi ki sama sama xarit la. moom oh, da ngay ragal ñi mu àndal ñoom bàyyi ma jox kan la si suuf. ki sama xarit la <laughs> kii laa faral faral yéen ak yaramay ndam di ñaan bés bi yàlla nañu fa yàlla yóbbu Assane bu bés baa fukki sa rek ñaar lay tag parce que bas bésam jëriñoo lu ne ku baax a moo baax moo gore Basirou Fall loo looy waxaat sëñ Bas dernier mot Bas. moo baax moo gore. doo wax nee ko Bas yaa baax yaa gore. waa demal waa baax yaa gore. kon asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew yépp kenn ku ne maa ngi koy nuyu ci turam ak santam di sant yàlla bu baax nag ci daje bii nga xam ne. def nañu fii ci Kër masaar wax dëgg yàlla euh, di ci sant suñu boroom bu baax a baax wax dëgg yàlla yaakaar naa bés bi moom waajuñu ko sax waaye gis naa taxawaay doomu aadama wax dëgg yàlla di sant euh, sama nijaay sama kilifa muy kaw usoo waaw mu ngi fii toog wax dëgg yàlla maa ngi koy sant bu baax ci taxawaayam sama diggante ak moom ci ni ma téye ni ma jàppale wax dëgg yàlla ndax tey rek amoon na gànt suñu waxante dëgg ndax ku am dese moom wax dëgg yàlla wàccee nañ la lépp waaye fexe na ba ñëw muy sama nijaay boo xam ne wax dëgg yàlla euh, dafa joué ci sama carrière lu bari wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko wér ak gudd fan ba lépp loo xamante ne moom yéene na ko ci Tivaouane Peulh yëpp mu fekkee ko te ñu ànd kook moom barkeb sëriñ Saliou waaw maa ngi sant bu baax nag grand grand Assane ñun waa Tivaouane Peulh ñoo la ameel njukkal ndax wax dëgg yàlla lii nga def yaakaar naa bu ngay dugg Tivaouane Peulh di fa tuddee ay nit drapo c'est yow yaay seul promoteur bu njëkk ñëw Tivaouane Peulh biir terrain Tivaouane Peulh ñu def fa lu mel nii dëkk bi yëpp génn télé yëpp ñëw tuddee ko sama nijaay te yaakaar naa loolu lu ma xam la si loolu bi nga ko defee da ko def rek ndax bëgg jeunes yi ñoo tax parce que bu dul woon loolu doo doo doo jël ñu mel ni ñun nga ñuy tuddee lamb kon ba nga koy tuddee sama nijaay boobu sama nijaay sax xamulo bu baax man maa la xam ak paati ak yooyu bi nga ñëw nga tëgg kombaam kon tey boo ñëwaatee tëggalaat ma beneen euh, drapeau benn la rek man ak kaaw benn lañu ku koo ci tëggal rek tëggal nga keneen ki ndax lépp man mii maa ko yor muy dogal suñu borom sama diggante ak moom kon Assane dañu lay sant. yaakaar naa li nga def def nga ko Bambey def ko ci dëkk yi autorité bu nekk tuddee nga ko fii tur bu la neexoon doo déplace jóge dakaar ba ñëw banlieue bu xaw a mel nii waaye nga nekk première autorité boo xam ne yow la njëkk a recevoir ci département bu Kër Massar loolu muy la am solo ndaxte département Kër Massar bi nga xam ne président Macky Sall moo ko irrité département yàggul yow yaa njëkk a nekk premier autorité boo xam ne koo xamante ne def na lu mel nii ñu ñu ñu daje fii ci département bu Kër masaar bu bees bi kon muy loo xamante ne wax dëgg yàlla am na firnde kon ñu ngi lay sant ndax Sénégal nii nga ci nekkee dajale ndaw ñi ñuy bëre ñu si am dara yor yeneen société di liggéey ndaw yi di si gis seen bopp kon grand assan ñu mel ne yow suñ ci amoon ñaar fukk rek Sénégal dina avancé dina weesu fi mu nekk ndax kenn ku nekk da xam ne am na si loo xamante ne président Macky Sall mënu ko président Macky Sall mënul kër bu ne mu jël dugg fa jël benn ndaw waaye am na si ñoo xamante ne suñ jegee seen ndaw jege seen askan li ñu jàppale ay nit kon grand Assane maa ngi lay sant waa Tivaouane Peulh yëpp a ngi lay sant waa Kër Massar ñu ngi lay sant di sant waa ahlu làmb yëpp bàyyiwuñu kenn gis naa sa taxawaay di la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm ba ci bés bi incha allah lépp luñ ci moon dinañ ko si def te ñu nit dinañu defaat beneen bés sargal la ngir nii nga ñu sargalee saa su nekk wax dëgg yàlla loolu moom euh, dinañ ko def di la ñaanal yàlla ci barkeb Serigne Saliou yàlla defal la jàmm ndax nit ku baax nga waaw dama lay ñaanal rek di nuyu tamit Mohamed fay ak sama tonton kenn ak mbay lum di leen sant bu baax yaakaar naa Kër Massar ak Tivaouane Peulh sori na soriwul waaye bu doon yëguñu ma woon su ma leen ko yëgalee mën na am ñu bañ a ñëw waaye gis naa seen taxawaay kon Mohamed maa ngi lay sant di sant sama nijaay tontoo kenn nga xam ne sama nijaay la waaw moom day day sonn ci man. coono yi muy sonn ci man moo metti wax dëgg yàlla chaque jour day ñëw xool li nga xam ne dama koy def ma avancé mu taxaw ci yenn saa yi da koy jaraa sax futteeku xuloo ak man ngir ma réussir loolu kon maa ngi lay nuyu bu baax tonton kenn di la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm di nuyu tamit euh, mbaylum bu baax bu baax maa ngi koy sant ndax nit ku baax la di sant Mohamed seen ànd bi macha allah yàlla bu si cat dugg parce que da ngeen ni ngeen àndee moom moo moo rafet waaw yàlla na la yàlla defal jàmm di nuyu tamit euh, Lamine Lamine euh, et Tivaouane Events Bass di la sant bu baax gis nañ taxawaay bi di sant ñi fi tey teew yëpp di sant soxna Binta Sarr di euh, sama jigéen di sama mag di sama xarit nekk responsable femme mouvement BAS di sant waa mouvement BAS yëpp Kolda Touba Kër Massar jàmm gën parcelle su ma limee damay juum maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm soxna Bind sant naa la bu baax gis naa taxawaay bi waaw ñun ay ndaw lañu nekku ñoo àndal parce que dañoo dañu motul lii war nekk ci ñun yëpp nekku ci ñun waaye saa su ne yaa ngi ñuy comprendre di sant sama jigéen sama mag soxna Jeewa Kamara BAS ko euh, euh, Kër Mbay Fall gis naa taxawaay bi maa ngi lay sant di la gërëm man awma seen fay su ma doon wax ba suba mbégte rek lay waxee di wax waa Tawfekh Yaakaar maa ngi leen di nuyu gis naa seen taxawaay yéen de barki Serigne tubaa sama ànd ak yéen gis naa taxawaay bi yéen da ngeen a sonn si ñun wax dëgg yàlla kon maa ngi leen di sant bu baax su nuyu ñoom mami ak euh, soxna Kumba Sarr di sant leen ñoom ñëpp ngeen santal ma waa euh, Tawfekh yëpp ak képp koo xamante ne suñuy responsable la koo xamante ne mu ngi fa di ñu jàppale fan yu néew di ngeen ñu gis man ak sama nijaay incha allah ci Tawfekh yaakaar dinañu ñëw foofu gisante ak yéen di leen sant bu baax di sant daal ñëpp di sant ñu fi teew di xam ne di sant sama mag euh, kii Thierno Sow di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm. yoo xam ne drapeau bi dañ koy delloo président Macky Sall di ko delloo suma xarit yi nga xamante ne mooy ñu amee fay ni ko Kaw Ousso waxee di ko delloo waa commune Tivaouane Peulh ñàgg yëpp ñëpp koo xamante ne rek yaa ngi Tivaouane Peulh ñu ngi lay delloo drapeau bi ñu jàppale président Macky Sall euh, Sénégal jëm ci kanam. xam naa kaddu yi mënuma sant su ma sante day am ñu ma fàtt di sant bu baax wulli muy sama xarit wulli sama digganteeg moom yaakaar naa xam naa ñu bëri Sénégal ñu ma xamul bëriwul waaye ñi ma mujjee xam ci la bokk waaye fii mu taxaw ci man adduna yëpp koy seede maa ngi lay sant bu baax wulli yow yaa baax barki Sëriñ Tuubaa xam nga ñu ma ëpp xaalis xam nga ñu ma ëpp daraja xam nga ñu ma ëpp ay at waaye da nga maa téye di ma baaxal foo xam ne ñooñ sax xamuñu ma ba ñëpp obligé di woon ñëw ma bëgg kon wulli maa ngi lay sant di la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm di sant bu baax nag journaliste yi teew fii yëpp bàyyiwuma kenn su ma limee par benn damay juum mais sant naa leen bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm di sant tamit ñaari mbër yi di leen ñaanal yàlla wér ak gudd fan ak fekkee bés bi que le meilleur yàlla moo yore ndam moo koy joxe mooy xool ku ko neex mu jox la ko waaye saa bu la ko joxee sant ko ci loolu moo la defal bu la ko xañee tamit sant ko ci loolu moo la defal ndax yàlla lu ko neex rek def tey ñun ñëpp ay jeunes lañu te gis naa seen taxawaay wax dëgg yàlla yar rek ngeen fi wane lii rek wane neen bési combat bi jàmm rek ay xew wax dëgg yàlla ah lu muy xaar ci man loolu surprise lay doon waaw loolu moom xam nga ne man moom ab taalibe bi sëñ Béthio laa xam nga ne man ab cantaakun laa sëñ Béthio ma yar teraanga si la ñu yar waaye ñoom ñëpp lay defal teraanga incha allah du ma wax kenn ak kii mais ñëpp incha allah maa ngi ñaan yàlla yàlla may ñu fekkee ko jàmm di la sant bu gis naa taxawaay bi ñu sunu boo ñëwee si lu mel ni kon dañ laa war a sant gis nañ taxawaay bi gis nañ tamit ni nga jàppalee suñu grand grand Assane ndax grand Assane tey ku ko laal ci Sénégal ñun nga laal waaye ku ko jàppale tamit ñun nga jàppale ndax day ku bokk ci suñu suñu suñu suñu mbir ñu ngi lay sant di sant ñoom Awa Sow di sant ñëpp daal di sant euh, borom sabar yi <laughs> waaw mooy tambour major di ko sant bu baax a baax Amady fu ñu jëm rek ndeysaan ñu ànd di leen sant bu baax di jégalu su ma juumee rek ngeen jéggal ma di xaar yàlla may ñu yóbbu fekkee la 13 incha allah ñëpp mobiliser ñu dem stade merci. Ah, ñaari champion yi nee na moom taalibe Serigne Touba la taalibe Cheikh Béthio la ba tax na nee li muy def surprise lay doon kon nag que le meilleur leen nag ndax nee naa leen ndam day génn wala ndam dugg te bu boobaa nag ndam faa mu génn dëgg du neex ci diggante George Bush ak Badou Fall. waaye nag dañuy jox ki nga xamante ne mooy njiital Baol production muy Assane Ndiaye promoteur bu mag bi nga xamante ne yàqu fi lenn Assane ñu ngi leen nuyu di ziar. jërëjëf maa ngi leen di nuyu ni euh, ngi sant yàlla bu baax di julli ci bi di gërëm suñu ñaari waajur ñi ngi sant Serigne Touba bu wér di wax jërëjëf Serigne Saliou maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp jël nuyoo bi teg ko ci suñu papa Kaaw Ousso ñu ngi koy ziar bu baax a baax di am mbégte ci moom. di nuyu Basirou Ka suñu xarit suñu doomu ndey ñu ngi koy jaar bu wér di nuyu suñu grand Mamadou ja biñ la gisee aussi suñu xel dal na si yow aussi ñu ngi ziare ñëpp di gërëm nag ñaari mbër yi su Bush ak euh, Badou Fall tey laa leen wax ne dañuy def remise drapeau ñu bàyyi li ñuy def lépp ñëw xam nga nit boo nekk moom di liggéey foog ngeen deflante ay ngor nit ñu baax lan xale yaru lañ maa ngi ñoom yàgg na maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. di nuyu presse bi yëpp di leen sant di leen gërëm maak ñoom ñoo far lépp lu fi leer fii lay leere di nuyu nag wulli sama xarit la yàgg na ñi ngi liggéey nit ku baax nit ku loolu muy wax naan yaa baax yaa gore moom la dal <laughs> mais du jox ñëpp rendez-vous nag la treize boo gisee xale yi ñu boole si na yàlla xale yu mën a bëre yu xale yu am public lañ dig la wax Basiiru boo ñëwee stade di nga xam ne ñaari xale yi duñu ay xale como combat bu ñuy tëgg lañ koy xool ba mu neex amateurs yi amateurs yi bëgg ko ñu tëgg ko combat bu ñuy tëgg lañ koy jox kilifa mais am nañ mbégte ci yow suñu xel dal na ci yow di wax président la république kii daf lay jàppale te yàlla tax na ko waa état bi geesu jàppale ko ndax lépp lu Macky Sall soxla rek Basirou Ka mi ngi ci taxaw kon ni ngi ñaan yàlla daal yàlla taxaw la yàlla jàppale la bala tërees que le maire gagne nee naa leen riir bi riir bi nga li la ba tax na ñaari mbër yaa ngi noonu toog muy Badou Fall Zosu Buus ndax nag coow li coow li ñoom la te olof Ndiaye day faral di wax naan ñàkk du feeñ ci taw dëgg du neex ma bëgg nga dugalal ma Badou Fall mu dugg ñëw taxaw nii après nga dugalal ma ki nga xamante ne mooy Zosu Buus mu ñëw taxaw sama wet foo dugg baax na xanaa kookoo pare. ci digg bi Massa Badou nee na ko affaire bi man la Zosu nee na ko ñàngali mu safut gaynde man yi bagaju ma ndax dafa sëgg faalew ko ma bëgg na dugalal ma ki nga xamante ne mooy George George kaay wane sa bopp cey George waaw waaw ñi dañuy faral di wax ndaama yëgul njool wala njool yëgul ndaama tey lay lépp di leer Badou maa ngi lay nuyu. maa lay fay Paul bu rafet gannaaw ban sant yàlla julli si yonent bi di sant suñuy ñaari waajur di sant suñuy supporters di sant eh, Assane Ndiaye moom nga xamante ni ku ñàkk ki ñaan depuis bi may doon tu ba léegi ma ngi ak man. billaay wallaay musuma rafle combat ndax moom. billaay wallaay te am nan ay promoteurs yu ñu dëkkal mais xoolu ci loolu lépp kuy raam moom di la teete xaw ma bu amee oto da lay yóbbaale te moom yàlla na ko yàlla fay xolam dama koy wax chaque fois mook Cheikh Diaw ñuy féliciter sama ndijaay bi taalibe Cheikh Serigne Saliou boobu ak sunu ndijaay kaaw waaw moom moom présenté na ma ko avant ma ko gis na sama ndijaay Baye ma Ndione waaw wax na si moom lu yaatu mu ngi wax ci moom lu yaatu te waaw kaaw nag ñu ngi lay sas lenn ñu ngi nii géej gi lan yaakaaragum bu dul làmb ñu ngi la koy sas bu ñu duggee si combat bi nii yaa ngi ya nee nga moom nee na bi surprise la surprise boobu na yaatu rek te yàlla tax ñun ñu ngi la koy ñaan bu soobee yàlla kii moom amul lu may wax ak moom comme signature la rek ñuy moom. waaw doo amul nuyu état bii nijaay wax na ko ku man sa morom duma danoo toll foofu xaraba dara te man ku seetaan samay combat xam nga ni waaw badu moom du koo xamante ni day nekk sax waaw di filip falab yaa ma gën a xam lu lu lu yàlla def nag ñu xam ne noonu la. mais léegi ko ziar. magal. waaw di nuyu ñu fi waaw di nuyu ñu toog yëpp. waaw du nuyu Assane Ndiaye ku ñu tudd. Euh, ñëpp waaw du nuyu ñu toog fi yëpp du ñu du nuyu wuli du nuyu sama adversaire bu baax a baax xam nga du nuyu ñu fi teew yëpp xam nga bàyyiwuñ kenn caméraman yeeg xam nga affaire yooyu noonu waaw du nuyu waa Mbusnaa bu baax waa Ngunjaan waaw du nuyu ñëpp képp kuy bëgg sor sa buur rek maa lay bëgg bu baax xam du nuyu waa Medina yëpp waaw kii nag nee na amul lu mu wax ak man dina am lu mu ak man nag. lan lay wax loo koy kii bu dee lu métti maa ko gën ñeme lu métti fuuf yaa may dégg bu dee xeex maa ko daq a xeex bu dee bëre maa ko daq a bëre yaa may dégg foo ko teg fi ma ko teg mooy li ma gëm ak li ma liggéey te bu suur ba maa kii bu ñu sumee ko dina dina xam ne maa kii ma du maa kii waaw dina ñoo xam ne du maa kii bilaay walaay kii dugg na sama dëkk nag am nu mu fa demee dugg na sama dëkk am nu mu fa demee la fa demee waaw mais xam naa ne du fa dugaat kii dafa jël sa dëkk lan moo fa xew ba mu duggee sa dëkk fa xew. non dugg na sama dëkk nii nag xam nga am fa ay par hasard quoi. par hasard waaw par hasard xam nga mais mais bii lay mujjee dugg Ngoundiane voilà. bii lay mujjee dugg Ngoundiane bii lay mujjee dugg Ngoundiane. ayca Badou du ma ci wax ndax moom moo feeñal boppam loolu bëgguma ko na tax tari ndax ñun danoo nekk si yoon di dem rek waaw. nunu yàlla ma ñu xam ne noonu la. nee na bu le treize incha di nga xam ne lépp dëgg la. moom bu simmee koo dox man ma simmee ko dox ñu xool leneen. leneen lan barki maam Seera Fall ma ngir ay daano yooyu ko mbër yi yenn mbër yi ni def kii bu simmeekoo man ma simmeeku ñu dongali barki maam Seera Fall laa lay wax nii ay supporter am dañuy liw. état bi nag moo xam li muy liggéey man li ma liggéey moo ma concerné. yow man yàlla baax na. jàpp ko daan bu sooba yàlla fi ma jaarale ay moromam bam mu ne seen dëkk boobu bii laa fay mujjee dugg dinaan xool. ki dàq bëre ki ëpp doole yàlla na ko sunu borom may ndam. amiin loolu koy jeex na loolu amiin laa wax. di ngeen da ngeen a ki yéen ñaar. ngeen jëlante. awaa ah, xam nga laamu ñu boole rek. xam nga ma fekk ko ci laamu nag doon xale bu ndaw di pourfe xam nga. ñëw mu may ma saa may dégg. kii paa ah. te man xale bu ndaw laa. ngi may dégg man xale laa. yaa may dégg bu baax. man deux la laa deux am ci làmb ji deux ans deux la am ci làmb ji. deux ans laa am ci làmb ji bëri six combats. yaa may dégg du kii moo may téye barki alxuraanu karim xaw ma de mais du kii moo may téye barki borom daaru kii bu arbitre soufflé dinañu wax leneen ku dul kii. bàyyil waat waat waat baaxul yow ñooñu ngay waat bëréew nu bëréew lu woon déedéet ñun ñaar ñooy wax déggoo ma de yow bëri fi daxa waat li jàpp di leen ndulli ban nooy déggoo ma de yow boo xafee tuuti boo xafee tuuti non yàlla baax na déggoo garaawul ma déggoo ma de. garaawul xoolal li ma lay ñaan mooy suur ba na nga taxaw déggal sa bopp yaa may dégg affaire bi yu fu góor la ñu jëflante man ak yow yaa may dégg xoolal fii dafa sori mm. jóge fi ba arène nationale yaa may dégg dafa sori ñii dañ leen a war a mm. teel a libéré mm. boo taxawee ma yow du ñu bëre une minute barki borom daaro man damay xee damay bëre xale laa te man xeexuma bëreew ma kon déggoo ma de xeexuma bëreew ma kon da ngay aaj lu kii bu yeexee du ma gis. bu yeexee du gis dara. kii kii ma léegi yéen ñaar ku taxaw kuy fekk sa morom. kii na arbitre na fir rek. da man xaw ma kii fu mu nekk ma jëlee ko fa. man yóbbu ma samay supporters. Eh, billaay wallaay six combats laa bëri six victoires yaa may dégg. le 4 avril laa mujjee bëre mais boo moyul kii mooy deuxième door mu daanu bi lu leer laa lay tegal ah, nii. xam nga moom dóor mu daanu la am man dóor mu daw laa am wër na Assane Ndiaye bi. ah wane ginnaaw ba mu wane ginnaaw. mooy mbër ba wane woon ginnaaw. waaw ma koy dàqi moom loolu laa moom dóor mu daanu la am mais kii si noppee door mu daanu combat bi. ñaare fi waaw maa ngi gërëm waa Thiaroye gépp di leen woo si combat bi waa Gambi waa Gambi maa ngi leen di woo ci combat bi bu baax fi mu nekkoon ndax combat bi danoo jaral avant combat bi ñu ngi ko doon dégg boobu yëpp ñu ngi Gambia nekk fa di liggéey lu metti di gërëm tamit suñuy coach su Aliou Iba Cissé Iran di gërëm sama boy yi ma àndal ñëpp semaine bi passé dama amoon benn décès sama benn tuut tànk ku sosoon ci man amoon feebar bu yàgg na yàlla na ko yàlla yërëm te yeexanu ko muy Daouda Diop mais presse bi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax pël ñu ngi leen di gërëm ndax yéen bu demee ba toll fii à cause de yéen la yéen yéen ay déplacé wu fu ne di di di jël si mbëri mais ñu ngi leen di gërëm di leen sant mais waa Caaray maa ngi leen di woo bu baax ci combat bi waa Caaray ak waa ñaŋal ñëpp maa leen di si combat bi ñu ñëw jàppale seen doom seen xarit seen tuttaange ñu ñëw yàlla may ñu ndam si kaw. Sose Course la Térèse bu sooba yàlla yàlla na ñu yàlla may ndam. George. waa maa ngi woo Mbuus Nax yëpp eh, balaa ngay woote daa amatuma leen lu may wax ak moom lu dul la Térèse ma jàpp ko daan ko dem ñibbi kii moom du làmb comprendre nga li bu ma koy wax nag. maanaam dina kii ci ay dëgg-dëgg mais kii man li may wax xam na ko bu baax. maanaam ne yow da la ko def. waaw jallukaay laa ko man damay sant waa mbuus naa yëpp vaar daal xam naa vaar moom. vaar moom xam naa am na moom. luy waay di wax na di sant waa Ngunjaan waa mbuus naa mu lay yoo fogole séeréer mais sim naa ñëpp mbuus Ngunjaan xam nga Taateen xam ajim fen xaban xam nga mi xooyaa geloor xam nga te garu kombaane xam waaw waaw di woo ñëpp di woo waa Midina waaw di sant ñoo xamante ne nag dañoo ses ca man ku ci mel ni ñoom Cheikh Anta xama ñoom Bada Dione ñoom ñëpp maa leen di sant bu baax a baax baax di sant ñi may jàppale nag ku ci mel ni sama pataro Abdou Kanji xama ñoom Tafa Kanji Baylaat xama Xaadim xama di sant suñu mairie bu baax nag Mamadou Thiaw ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ñu ngi koy wax nag mu gën a jàpp xama di woo waa Mouvement Teranga xama di woo waa fan si club Sorso Bouss ak waa Boussa boole waaw di woo waa di ci laa xama di woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi xama waaw di woo di woo xaadim xaadim visiteurs yi maa ngi koy woo bu baax mu ñëw jàpp ci combat bi la tëri xama yàlla may ma ndam ci kawam quoi merci